ministère bi yor wàllum wér-gu-yaram ci biir réew bu Sénégal ngir mu mën a ñëw euh, saafara bi lépp manque dafa jëloon rek ay agent wàllu nañu ci ñeent fukk ay infirmier ak ay sage femme ñooñu nag daañu leen gën a tàggat ci lu jëm ci anesthésie réanimation ngir gën a yokk seen ëpp xam-xam ak seeni manin ci ñaari at waaye yile ay étudiant moom li leen metti mooy manque de motivation bi danoo admis benn concours comme ni mu ko waxee depuis boobu ba tey bi ñu jàppee ni ñun admis concours pour ñun li waroon suñu diggante ñooñu den ko def ñu xëy xëy yónni ñu ay ay euh, stage pour ñu dem suñu position fi nu war a def stage mais bu ñu demee euh, boobu ba léegi def na at ak genn wàll mais du lenn loo xam ne jàppale nañ ñu ci. étudiants yi dañoo am lu leen metti lool ci seen i nekkin waaye tamit ci seeni i bërëbu liggéeyukaay li ñu leen di fay ak li nga xamante ne moom la ñuy liggéey wuute na lool toppatoowu ñu leen benn yoon. du bu ñuy déplacé wu du frais de déplacement du frais de du lenn loo xam ni am nan ko te ñun ba nu dañoo jaax ni bu nu admee concours état bi gis ne moom dafa soxla ay doomu aadama mu manqué woon lool ñu ñu bàyyi fa ba yu amoon fan doon liggéeyee depuis nag. ñu ngi ci liggéey bi am na ñoo xam sax doon dem ba mujj li ñu gis xamatuñ ko ñu bàyyi parce que métti na wax nan depuis daaw ñi ngi wax ku war a gis gis nan ko ñëw neen ministère def na rencontre ak ñoom bind ab bataaxal bind si seen i doléance seen i métit yëpp jagleel ko jawriñ bi yor wàllum wér-gu-yaram ci biir réew bu Sénégal ci boobu lépp bataaxal ñu bind ci nag seen i métit yëpp waaye tamit seen i revendication tey am njort bu rafet ne autorités yi daanañ ci jël seen i matuwaay ngir ñu saafara li nga xamante moom mooy seen ab jafe